Bienvenue sur Salam Vision. asalaamaaleykum euh, tey dañu ñëwoon Pikine euh, doon xool ci jaar-jaaru Thione sekk comme dañu njëkkee nag ci kër Ablaye Nar Seck mi nga xam ne mooy mag am ñu bokk ndey baay duñu ñëw ci koñ bi ba dem te duñu ñëw ci mbay seen Mbaye Sène nag ku ko xam-xam ni Thione Seck rek la ba mu jeex Mbaye seen ku ko xam-xam ni kër gi mu dëkk presque Thione Seck fi la defee xale ba ni mu màggee léegi nag dañu ñëwoon tey ci yow mbay Sène di la laaj sa diggante ak Thione Seck ak relation yow amoon ak moom daal loolu la ñu ñëwoon pour laaj la ko. ak ko ak bi. waaw mais yaa may laaj ci ku ma sawar a wax. Mhm. yaa may laaj ci bu baax. Mhm. mais balaa ma wax ci loolu lépp maa ngi koy ñaanal yàlla. yàlla xaral ko àdduna yi gën a kawe. yàlla yóbbu ko ci gën a am yàlla na ko yàlla jéggal yàlla na ko yàlla xare àjjana. waaw man sax man je trouve pas ma wax pour l'instant parce que depuis boobu léegi je suis pas encore abattu que ne na ko. man lu ma doon tey jii gannaaw yàlla yonent moom la coon la. parce ñu bari yaakaar nañu ay mbay wëddeel wala mbay li mais lépp coon la. tey jii su ma amee lu may bañ. gën a xam sama bopp am lu may jomm am lu may seet am lu ma rus ñu dégg ma ci wala ñu gis ko c'est grâce à Thione parce que bu dee cent pour cent daf ko daf ko joué ci man daf ma ko wax daf ko jëfe ak man mu nekk nit ku ma yaatal amu ci moom frontière amu mu yaatal ma lool te bi loolu amee tamit ñoom Ablaye Naar di magam ñoom ñëpp yàquñ dara te xam na relation bi ak moom xam nañ sama diggante ak moom waaw nit nag mënu la defal loolu lépp ci àdduna way la way woo xam te ne ci la yem li moom la ak boppam lépp la ma defal quoi xarit li ma la mën a wax coon dafa bari bari bari lool pour l'instant nii en tout cas li ma la xam ne dañoo nekk réew moo xam te nag dafa neex a dund naqare neex dee boo fi lool waaye boo dee mu neex mais coon li ñu mujjee ñëpp Sénégal nangu ko noonu la musa mel nit ko ëmbal la nit ko baax la dëgg nag mook alxuraan yem danga koy bëgg rek gëm ko dégg ko xam ne li ci yàlla wax rek moo am mais noonu la meloon du tricher nit ko baax baax baax la nit ko oyof la coon loo wax ak moom sax boo ko tiimee di ko tagg yenn tagg yi sax mu bënd bët ñoom ñëpp a yem na fay boobu loolu am na ci ñoom boo ko tiimee di ko tagg sax mu bënd ay bëtam barke alxuraan bu la defalee dara nga ñëw di dëgg mu jooy mu dama léegi dama ñu turu wala mu fombaat doo xam lan la mais àdduna moom solo en tout cas yaa ngi ñëw ci ko baax mu gën àdduna lu ko bett lu ma bett mooy sunu borom ak dëggam tey nag boo xoolee dëgg ci jaar-jaaram ak waayam ak waxinam lépp. xamoon na ko daa mel ni am lu ko yàlla may. am na lu ko. coon billaahi am na mayu yàlla. barke alxuraan karim. coon sekk yàlla. coon sekk nit ku baax a baax la. coon sekk di nga gis noonu yàlla rek tax may wax. doomu aadama la boo xam te ni bëggul ko xas mbokkam bëggul mbokkam bëggul ku ko ku ku néewal doole mbokkam bëggul ku néewal doole nit. ku diiñ la ku bëgg ay njaboot ku bëgg mbokk barke yonent nit ku baax la man. suñu kër gii tey jii boo fi duggee da nga kër la rek wax dëgg yàlla kër kese la kër la comme kër yi rek waaye kër gi jur na ay kër te kër yi mu jur lépp gannaaw yàlla ci barkeem la jàpp ndaxte tey am na am ay troisième étage ko sama rak jibee ñoom ñëpp ku ci ne tey ci moom nga jaare pour dem Europe comme kooku mbaax mënu ko sax dëkkandoo ku ci ne moo la jël te kenn xamul nag la nga joxe ak la nga wax ak la nga def mais mu jël la ànd ak yóbbu la fa Europe bàyyi la fa ne la daanal doole tey jii ñu bari tey ñu ngi suñu kër gi am nañ ay kër yu ñu tabax grâce à Thione Seck la. man jóge naa Kilimanjaro ma xam su ma ñibbisee fi day fekk fajar fekk nekk pâtisserie ba yenn heure yi bu sept heures jot man damay liggéey te du ko am sutura ci boppam xaw lu mu doon def fóon banque ba muy dem ci basayaaw bi kenn xamul day dugal day génn mais bi ma rombee ci suba teel gi bi ma rombee mu gis may liggéey dafa tiit ne ma yow wér nga man ko non dama xam mu ñibbi day teel fi benn la rek ma toog fi mu génn xaalis ne ma barke alxuraan lu ma la gënoon bëgg yokk naa ko. keroog la jël jaaji mbeng rakkam. xëy suba dimanche si kàpp. yëkkati xaalis bari na ma doon bëgg jaaji di ànd ak yow muy liggéey. ba di ma ko yóbbu Italie moom it rakkam. jaaji loolu la def ak man. bari na ma dama doon ko nga ma comme dama doon jëlal ko marchandise jaan nag moom muy liggéey. ma defal ko loolu ba ni mu jëlaatee jaaji bi loolu jeex ba jaaji mokkal lii mokkal mu jël ko yóbbu ko comme nit ku baax la su ma gisee man ak moom doom yëpp xam nañ ko ci man jabaram ki ne ma koy jàll ba ba léegi vraiment sama ñu paañ xam naa ne wéet na ñàkk na mais njaboot njaboot gi xam ne man waa moom buñ toogee reetaan rek la xarit ma la mën a wax bu baax dem na waaw jërëjëf Mbaye Sène kàddu yi rek lañu soxla woon ci yow te yàlla def na ba yombalal nga ñu ko ñu ngi lay sant yow itam di la gërëm yow itam ñu ngi lay jaar Thione Seck. asalaamaaleykum Mendicou euh, Kassé. ko salaam. Euh, ñu ngi lay nuyu di la ziar. yàlla boole yoolu ñu ngi lay ñaanal bu baax nag. waa tey nag euh, waa Salam Vision dañu ñëwoon ci koñ bi nga xam ne fi la Thione Seck nekkoon. ñu jóge kër Ablaye Naar sekk bu mm. jóge ci ci kër ab lay Naar dem ci meer Bintou Mbaye dañu ñëw ci yow maire Dickou. dañu ñëw nag di la nuyu. di la wax ni la ñu ngi lay jaal coon bu baax naqar bi nga xam ne ñun ñëpp ñoo ko bokk. waaw Salam Vision nag dañ ñëwoon pour laaj la. sa diggante ak Thione Seck looñ ci mën a tënkal rek ci lu gàtt. la nga nuyoo nag. asalaamaaleykum ngi leen di di leen seen jàmm ak seen jàmm moom kenn ku nekk mën nga koo jaal sa bopp. dëgg yàlla te yàlla rek tax ndax Thione dafa nekkan xale bu yaru. xale bu am yitte xale bu am yët ci nit xale bu jullite waaye nag jullitam googu faraatu ko ndax àllaaji seex seex si na sëriñ Tuubaa bu daan wax ay ci leen julli boo toolee fii di ko dégg muy ku baax di ko yërëmoon doomu aadama di ko neexan a di dëkkandoo ju baax yoon daal li ma koy ñaanal seet fa mu jëm yal na ko dàqal fi mu jóge yal na coono yëpp yem ci àddina yal na ko àllaaxiraam dàqal àddina àddinaam yal na ko sunu borom yàlla yóbbu ca àjjana ya gën a kowe yal na dëkk ak Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam waaye nag coon yaayam na koy ngoom dafa baaxan nekk ci koñ bi di mag mu baax di mag mu jullite Nogoy Ngom yal na xam seen bu masaana dégg ñaar ñoo xam ne nee nañu duñu wax. guddi la koy dox. wóor na Sëriñ Tuubaa wax ko ba mu sedd. te kenn du yëg. koo ko waxul rek. du ko xam. xanaa nga xam ko. waaye nag laay naar mi itam seet. dama koy ñaanal guddi gi fan. ak ak wér. yàlla yokk xéewalam. ci barka yonent bi laay naar dafay nekk nekk nit ku baax mhm. nekk nit ku yaatu laay naar fat na ku ne barke allah ji faal laay naar fat na ku ne laay naar yaatu na di ku ñime njaboot di ku gëm yàlla ak a gëm yàlla laay naar ku gëm yàlla sunu borom la man li ma leen di koy ñaanal sekk mhm. yal na sut coon sekk aw fan sut àllaaji seex sekk aw fan ak ndogongom yaa ngi te di ci barke Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa coon moom ku baax la woon sekk ndax itam jàppale na Ablaay naata yàlla rek tax mhm. ndax mën ngaa bokk ak nit ndey ak baay mhm. te du la yërëm dëgg la waaye coon dafa yërëmoon Ablaay naata lu ne jàppale na ko jàppale moo waral lii tey mhm. ndax su fekkee ne mel na neneen ci moom kon ñun ñii di dëkkandoo yi mhm. dañuy xam ne moom lu ñu xam rek noppi waaye nag li ñu xam te xam ne moom soo ko waxee mhm. sunu borom yàlla def ci jàmm kon nag mën nañ koo wax ndax coon dafa doonu nit baax jàppale magam ku jàppale woon magam la yal na ko yàlla fay ci barke yonent bi Ablaay naar itam li mu bëgg yal na ko sunu borom yàlla defal ak mbooram jullit yéen ñii fi ñëw maa ngi leen di gërëm di leen san yàlla la fal leen cat mu sa leen ci ndog ak seytaane ci barka Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam li def noonu lu baax la ndax nit li dëkkandoo lii rek la am ndax bu ngeen bu fekk ne coon dafa mel neneen wala yaay meneen neneen ci kon bi wala laay naan bi meneen neneen ci koñ bi kon kenn du génn kenn du wax kon bu laay naan ñooy dama ko naa man du wax waaye nag laay naan day nit ku yaatu nit ku gore yal na ko yàlla defal jàmm yaa si may sa liggéey coon daal yal na ko yàlla yàlla bu ko cat jiitu ci bàmmeelam ci barke yonante bi yàlla bu ko cat jiitu ci bàmmeelam yal na ko siir naa moom met teeru sallallahu alayhi wa sallam asalaamaaleykum mbooloo maa ngi nuyu ñëpp waa Salam Vision di leen sargal di ñaan yàlla yi yàlla yàlla guddal fan yi ñëpp barke sallallahu sallam loolu sekk mi gaañu ni yàlla yàlla may ko fa mu dëgg fa mu tëdd yàlla na ko gën a fi mu jóge ci barke sallallahu sallam bala maa commencé toog sax damay commencé si ma la si Ablaye Naar suma xarit ma te maa ngi lay wax ne ni coon gaañoo ko njëkk a yëkk biir Pikine man la ñëw fëgg suma teel wax ko mu woo sama doom ñaan sama doom Alaaji Taal moom mooy manager Keba Seck loolu ñu xam nañ ko nit ku baax di nit ku sawar di nit ku yéwén di sama waay lépp lu mu yëg si man day ñëw fii ñoo koy bokk ba mu jeex mbéyte mu muy si moom damay ànd ak moom ba mu jeex. loolu moo tax ma wax mu commencé Ablaye Naar. doon sekk yi ñoo dëkkoon. fu ma dëkkoon ak kër gi ku ñëw Ablaye Naar bi mu jàkkaarloo ñu am fa néeg dëkk fa. Mhm. man maa ngi dëkkoon à côté. Mhm. lay jigal mi gaañu di xaritam. Mhm. te mu way ko way bu rëy moom. su musaan ñëw fekk ma coon da daa ñëw sama kër. su ma nekk xaar fa coon ba coon ñëw. waa baabaa bi ñëpp xam naa li ñu bëri xam naa. bu mujj bi na mooy coon sekk sax bu ko mujjee moom dama ko di ko wax ni Mbaye Sène dafa feebar. Uh-huh. Mbaye seen mooy ki xam ne moo ko tekkale woon jabar ca ñoo ànd. ñu uh-huh. bokk uh-huh. léegi moom moom la may dikki may ko mooy nijaayam. ma woo ko nag ne ko Mbaye Sène dafa feebar mu ne a ah, man de loolu yëgu na man su ma coupé rek koy woo. dafa coupé rek woo bi ñu ma woo ma ne ma coon sek bi ma Ablaye ñëwee nag coon sek génn naa dem man dama tiit ba xamul ma maa ngi tëddoon si biir néeg bi mais xamul ma def. bu koy ñaanal fi mu fi mu jóge nii uh-huh. yàlla na ko gënal fi mu jëm fi mu jëm uh-huh. yàlla na ko gënal fi mu jëm uh-huh. ci la man benn mooy ñaareel bi biñ koy rob biñ fay jóge ñu ngi wàcce kaami ñaanu Ablaye Naar mii mu jël si mooy fay taxi bi ñu dem ñu ñaanal ko ñibbi si wax yàlla xaw ma dara lu ma si teg ma dul loolu di sant ñëpp sant ay rakam ma Penda Thione Seck ñoom ñëpp xam naa leen xamoon naa leen bu baax a baax a baax parce que ñun ñoo bokkoon dëkk fii Thione Seck bi muy nekk xale bu tuuti da ñëw amul jabar amul dara loolu na ko yàlla yërëm yal na ko yàlla xare àjjana yal na réccu lépp doon def si àddina di barkat sa naa maa ngi lay remercier di lay remercier wu jox kat bu baax maa ngi parce que lii vraiment bëggoon naa ko mais ah comme fu ma koy defee. waaye comme yàlla def na. yéen ngeen ñëw fii mhm. sama kër fii. di def ko mhm. ah yal na yàlla guddal seen fay may jërëjëf am sax am Sakkoor. waaw ginnaaw bi ñu sant yàlla julli ci sang bu tedd bi Seydina Mouhamed sallallahu alayhi wa sallam. tey mère Bintu mbay dañu dem dañu ñëw tey fii Pikine. fi nga xam ne fi la Thione Seck euh, juddoo presque yaroo fi. màggee fi ay famem nekkoon fi ay waajuram yëpp. Mhm. dañ demoon nag seeti Ablaye Nar Seck mi magam mi nga xam ne mooy taawu famille yi léegi nag ñun duñu waxtaan ci Thione Seck moo ko te ñëwuñu ci mère Bintou Mbaye waaw tey dañu ñëwoon bi Bintou Mbaye di la wax di la laaj sa diggante ak Thione Ballago Seck mhm. ak seen jaar-jaar ak jaar-jaaram ci koñ bi dëgg la ñu bàyyi la kàddu gi nga nuyoo jërëjëf maa ngi leen sant di leen ñaanal mhm. lépp lu ngeen sumba yàlla ci yàlla teg na ko mhm. loolu moom ku neex la ku neex la boobu baax ci ñun baax lool yaayam ak man xaritu benn mbokk la. bu ma waxee sax suma xol day fees ba ma jooy waaye nag lépp lu dul yàlla kon coono maa ngi ciy ñaanal yàlla. kon suñu jëm yàlla suñu coono mii maa ngi ciy ñaanal yàlla. Eh ko yàlla yoroon la. coono moo baax moo gore. coono moo dëkk ngor di yoo gore. coono kenn gënu ko. baax na si Ablaye naa. ana ci Moussa ana ci Aly Ndiongue lépp lu may wax sax dama war a jiital Aly Ndiongue doo cee teg keneen ndax yóbbee bu mu sumbee Aly ma jëkk a def Moussa fekk ko bu ñu waxee napp ñoom ñëpp ñoo bokk ndey baay ñii dama leen di bàyyi yàlla rek ñu mu ne sama xol fees na maa wax waaye yàlla mais xam ne am na pay tey fay waaye yal na yàlla pay coon sa allah yàlla na ko yàlla teelu teral am na sama doom sama doom di ñaan xalifa mbay fat sekk ko jur ak Modou Mané ak Kumba Jaw dafa xër ci coon ba buñ ko nee coon gaañoon dafa daanu portable ba yëpp woon ba tey ña ngi koy bu ñu ko jaalee rek yuuxu na ndax bëgg a coon lu tax mu bëgg ko ngir yàlla ak man tey xam nga ni coon fi la dëkk fi la yaroo fi la juddoo sero fa moom coon ba muy bi fii la ko daan gaari maa ko daan téyel dépassé bu dégg bëccëg saa bu ñëwee bintu bay ay ci joxal ma dépassé boo dem ba ñëw maa jindi dépassé bi su dema ba ñëw jox ma jox ma paas bi bare bu sakkat kon coon lu ñu wax ci moom rek bàyyi na la sa def coon yal na ko yàlla yéew yow mal xayaat coon yal na ko yàlla defal jàmm yow mal xayaat coon lu mu sumba si yow mal xayaat yal na ko yàlla fay yal na ko yàlla fay Moussa ngi lay gërëm Jibee ngi lay gërëm ah, Amadou ñoom famille Seeku Ndongo ñëpp ngi lay gërëm waa Waalo dañ maa jaala jaal ba ma yaru sama loxo di jooy waa Italie dañ maa jaala jaal ba ma yaru sama loxo di jooy ndax coono li mu bëgg lu mu lu mu sumbal sa àddina yàlla ko yàlla fay sa àddina mënumaa wax nag ndax moom sama xol dafa xaw waaye coono dama koy baal yàlla rek coono dama koy baal yàlla Ablaye Naar dama koy baal yàlla Nogoy Ngom dama koy baal yàlla ñoom ñëpp si kër gi la ñu bokk Seexu Njongo mooy seex mooy seex seex ñoom ñëpp ñoo bokk ndey ak baay kër gi nii lañu defoon amul woon sax xaajat seex barke yonente barke yonente kon yal na ko yàlla yéer barke yonente yal na ko yàlla xare àjjana yàlla barke yonente coon li mu summa yàlla na si yàlla teg loo xam sax àjjana ci barke nabil Moustapha maa ngi jaare bugaan rek moo yore mbay seen bugaan kenn gënu bugaan kenn gënu jaaga kenn gënu ah doomu doomu Thion waale. waale tabaarkalla macha allah. ñoom ñëpp daal dañu leen di bàyyi yàlla. yal na leen yàlla yéem. yal na leen am na am nañu bàyyi bu baax nag. bàyyi bu baax a baax a baax mooy Ablaye Naar amul benn xol. Mhm. amul benn jafe-jafe. nii mu toll la toll. Mhm. amul benn xaar na yàlla. Ablaye Naar. ñun sumba moo baax moo gore tabaarakallah ma sha Allah tan ko mboolem jël parce que yoneen jërëjëf kii nag moo doon maire Bintu Mbaye moo dëkk fii Waalo dend ak ñoom Thione Seck kër moo di maamu Mbaye Sène Mbaye Sène mi nga xam ne ñëpp xam nañ ni Ndeye Marème ko jur mais jarbaat la ci Thione Seck mm-hmm. Thione ko séddoo ko bëgg ko lool mm-hmm. kii nag mooy maire Bintu Mbaye ñu di ko gërëm di ko sant di wax ne fii buñ fi ñëwee rek dañ fi war a. waaw salaamaaleykum mère Oumy ñu ngi lay nuyu di la ziar. di la ñaanal jàmm. maa ngi leen bu baax a baax. nag waa Salam Vision dañu ñëwoon fii Pikine fi nga xamee ni Thione Seck fi la léppam. Ah, waaw fi la ñu ñëwoon nag seet si Ablaye Naar. waaw ah. comme Ablaye Naar mi magam ñu bokk ndey ak baay. waaw bi ñu fi ñëwee wax dëgg yàlla bi ñu waxtaanee moom ba pare. Mhm. daf ñu yebal ci yow mi mère Oumy Sall. Ah. ni ñëw leen ngeen waxtaan ak mère Oumy laaj ko ci Thione ni mu dëkkee woon ak moom. ak euh, jaar jaaru Thione fii ci koñ bi. ak jëfam ñu fi def ci koñ bi moom lañ la doon laaj si tey nuyu nag di la wax nga nuyoo. maa ngi asalaamaaleykum waa ñoo la fekk si. maa asalaamaaleykum maa ngi leen di nuyu di leen sant di leen ñaanal yàlla gudd fan ak wér ak wér leen. ndax yéen a ngi def loo xam ne lu baax la lu rafet la. parce que coon nii ma daanaka juddloowu ma ko waaye daanaka ci man mii la yaroo. boobu mu ngi dooru commencé yi muy def. bu ñëwee ne ma xam nga dëgg dëgg naka xa xa xa ma ne ko naa mun na ma ñaanal ma doo ma door a dem ka nga dara ci sama loxo ma daal di dindi dara teg ci loxo mu dem daal di ñëw dindi weccet wu bare daal di may fay ba ba ba ba ba ma yaale ba ma ne ko gis nga coon mu ne ma waa ma ne ko gis nga yàlla dina la yóbbu ba nga xam dinañ lay dégg fu foora foora foora mu ne ma ah mère Oumy waaye bu ma nax waaye man ko billaay wallaahi danga xaw ma lu dul dugg ba kum soow. dina di nga dégg foofu dinañ lu dina dégg kii bu rëy rëy ci yow. mu ne ma ah, bu boobaa doo bu boobaa nga kontaan dama ne ko baax na. yaa ngi fi maa ngi fi yam nañ ci dee fàtte. soobee yàlla de. di nga am situation bu rëy rëy yi nekk fi yëpp di way yaa leen di yaa leen di seeti ca kaw te man maa la ko wax na nga sàmm li ma la wax. na ma bu boobaa de dinga nga bu boobaa doo ko dee ko récuré ma ne yàlla baax na. noonu bi mu demee ba nga xam ne am na kiyam bu njëkk ba xaw ma nu koy tuddeeti kii kiiw or bi. disque d'or bi or disque d'or yaa nogoy ngom ñëw fekk ma fii ma toog mu ne um ne ma nekk naa mu ne ma ah, sa ñaar gaan bi bëgg a nangu de. Ah. Mm-hmm. ma ne ko ma. am na liste or ma ne ko ah mu ne ma dama bëgg nag ngeen dem fa. ndokkeeleel ma ko. ma daal di koy ma daal di mu ngi dëkk ci kër googu et taw fa xoogul ko mu ngi dëkk ci kër googu ci xaw ma nu mu tudd fa mu jëkkoon dëkk fan la. waaw waaw Sikaab. ma daal di amee bintu mbay moomu. ak kii ak kii moom. ci dëkkoon ci kër gi gi nan la tuddati yow. Sadio déedéet du saajo keneen ki la ki fi luyee woon. ñun ñeent daal ñoo àndoon dem. bi ñu demee. ma daal dem ci bunt ba naa ay gardiña ba ne ma yow ah doo dugg ma ma ne ah, lu tax ba du ma dugg mu ne ma ma ne ko ana coon mu ne ma coon dafa dem kees. waaw tëngéej dafa dem tëngéej ma ne ko yow man yaayam laa mu na ma ah noonu ku xees ki génn ku xees ka mu ànd daa nekkal. daal di génn daal di may taal yéeg yaayu coon la de. dugal gaaw noonu bi mu naan yaayu coon la coon daal di duraate daal oto bi mun la yore. daal di ni ma yee daal di may lëngal. ay yow suma maire bi maa yàggoo fi ma ne ah xaaw naa dem ndax te mu ne ma xaar fee xam naa daf la xam yow fi ma maire nag. daanaka li ma am sax ñaa yàlla ak ñaanam la. ndax ma daan ñaanal. ndax ma mhm. daan ñaanal. Mhm. daal di may lënga ni moom coonde lëng ma ñu dugg ci biir kër gi. Mhm. ñu dugg ma daal di may tegal siis tegal euh, teg nii siis si sama wet comme ni ñu toogee. mu may lënga daal ma xaaxaaxa ume ana pastel ba. ma ne ko pastel baa nga foofu dama daan pastel. di jaay akara. Mhm. ana pastel ba ma ne ko pastel baa nga fay. Mhm. mu ne ma ah mère bu baax a ngi ne sa ñaan gi gis naa ko bu baax a baax a baax. waaye lu tax doo fi ñëw ma ne ko xam nga man mënuma génn. bu mhm. ma amul ku ma àndal du ma mën a dem looloo tax mu ne waaye dama bëgg na nga di fi ñëw nag yow itam nag. ndaxte daanaka sa ñaan gi nangu na de. ma ne ko alhamdulilah loolu da laa bëggoon. noonu baa ngi fekk nit do jabaram ji di léttu am ku koy létt. mu daal di mu moom jabar ji daal di ñokket dugg ci néeg bi indi ma indi benn mbuus ñeenti am ca mu ne ma am bii maa leen ko maa maa leen ko joxe ci ci ci waxu tooñ waa teralee ci tooñ ma ne ko yow lii bari na di mu ne ma déedéet bari ndax yaa ngi kay gërëm ak dikk kii kay mooy sama wàll ci teral gi noonu mu daal di ñëw lëng ba daal di dindi ñaari junni jox ma ni ma am seen paas ma ne ko yow kon ñaari junni yi na dama leen doon ndokk ci kii di di sa yaay wax rek mu ne ma sama xol dafa sedd parce que yow fu ma toll dag ma daan ñaanal li ma doon ñaanal maa koy gis noonu ma daa ma daa ñi ñibbi nag ñu ñibbisi ba bi toogee ba yaa nogoy ngal gaañu bi mhm. mu gaañoo mu ne ma kaay sama yaay kenn du ko laal ku du yow yaa ma koy santal ba mu set doon na ma bëgg sax mu yóbbu Touba sax ndax booba dañ ne am ku leen defaral. ku mhm. sàng beeg yooyu. mu daal ne ah, ah, ah man man ko ah Touba nag moom sore na di mun a ah xaar ma dem xëy na dinaa dinaa gis ku ma ko sàngal ndax sangal nga ma ko sang boo xam nga boo demee tuubaa dangay dangay dañ lay defaraat. noonu mu daal ne ah man de bu doon sama sago nga ànd ak néew bi dem tuubaa defaraatal ma sama yaay ba mu baax. Mhm. parce que daana wax ne bés bu ma fi jógee na ma ummi laal. ma ne ka ah, yàlla baax na. Mhm. waaw def naa ci daal sama yéene. Mhm. sama yéene moom def naa ko ci bu soobee yàlla. Mhm. li nga ci bëgg yëpp di nga ko ci gis. coon ku baax la. coon ku am yitte la. coon ku dul fàtte démb la. dëgg yàlla man maa nekkul nit ku gudd tànk rek. waaye coon. ah mayoon na ma cër mayoon na ma teraanga. yëg na ma. kon dëgg yàlla waa kër Nongoy Ngom moom moomu moom moom moo ci gënoon a yëg mhm. ma di ko ñaanal yàlla ba mu tëdd yàlla na suuf sedd ci moom yàlla na réccu lu mu doon def ci àddina bi ndax coon dafa dee deeyaale ñëpp mhm. waaw deeyaale ñëpp ndax mbaaxam am ak yitteem mhm. am ñeme joxe waaw dëgg yàlla loolu da laa xam ci moom. waaw jërëjëf mère Oumy Sall kàddu yi moom wax dëgg yàlla rafetlu nañ ko dañ lay bañ a téye lu yàgg. ndax dañu am yeneen euh, nit ñoo xam ni. comme ñu mel ni ñëw rek yow rek dañu nekk ci koñ bi. te fokk nekk lu laaj la ndaxte coon. waaw ne nee coon dañ naan coon sekk pikin. koo wax dañ naan pikin ah, pikin dañ naan sax ndax dëggam bi pikin la pikin kon nag rafetul ñu ñëw ci koñ bi waxtaan ak suñu mag ji di Ablaye Naar Seck ba pare te ñëw di waxtaan ak yow kàddu ñu fi dégg nag wax dëgg yàlla kàddu ñu fi dégg sama ndee bi gis nga daan ñëw bu ñëw masaana bu guddee bu doxee doxa dox bu xaaji guddi ñëw ha ah, o mema naka na amuna ana boolu dof ba ana boolu dof ba mhm. ma ne ko ah, boolu dof xew boolu dof ba booba cere rek laa daan togg reer ko defee ma wàcce cere ji jox ko mu ne ah baax na yàlla baax na mhm. ndeysaan si waxam ju neex jooju rek yal na ko yàlla defal jàmm man ma ko déggee dafa benn sama yaram dafa gën parce que dafa dafa am yitte ci nit dafa baax am yitte dëgg ah, yàlla fa mu tëdd nag mhm. mbaa xam ñu koy waxal fii yal na ko fekk ba mu tënk ci dara jay xam ne salaam jërëjëf mère Oumy waa kàddu yi fi jëlee rafetlu nañ ko wax dëgg yàlla soxna njole ngi nii toog yow tam soxna Ndiolé ñu ngi lay nuyu di la ziar di la wax ni la wax dëgg yàlla dañ lay bàyyi nga sànni ci quelques kàddu ci sa diggante ak Thione Seck ak waa kër gi salaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakatu sant suñu paj julli Seydina Muhammad bis bi de tiis na lool metti na lool waaye il faut que ñu wax la wax mënul ñàkk wax doomu aadama moom su fi bàyyi ko amul leen luñ koy war a waxal lu dul ne te lépp nit wax itam dëkkandoo yaa ko wax moo gën a wóor ndax dëkkandoo yenay bokk yenn yenay bokk fana te Thione Seck ginnaaw yàlla bi muy xaleel ba ni mu dugg ci way yi ba fi mu toll kër gi nu jàkkaarloo fi la nit dëkkoon yaayam papaam dëkk nii la daan répété woy boo xam ne jëkkalu ko woy la ko répété waaye mu xale bu yaru di xale bu baax di xale bu am yar di xale bu bëgg ñaari waajuram kon Seck bu ñu defal woon dara dam doon defal alaaji Seck Seck ak yaayam na koy moom loolu rek royukaay mu bëggoon waajuram te waajuram gërëm ko àddina yëpp xam ne gërëm ko te waajuram yooyu nekkoon ay gor lépp lu leen coon seet masa indil ci dund muy ceeb muy diwlin mu manti doon ajaratu na koy ngoom lekk ko bàyyi da koy séddale ci koñ doon nag koo as gor soo xam ne sii rek guddi mi ngi dox lu baax ba ceeg mi ngi dox lu baax li aji ndikku wax dama koy dëgg ñun ñii këru jaboot lañ tey bawal bawal lañ tey jàmm day am ay day am waaye fii lu fekk tàngoon rek na koy ngoom da koy seel ba mu seel te def ko ngir njiital dafay def ngir yàlla damay wax ne coon Seck li ñu xam lépp ci moom tey jii yu dus ci nag bi na ndaw xajul ci cin la dama koy ñaanal yàlla fu mu tëdd yàlla na ko dàqal fi mu bàyyi ko te it bi ñooñu faatoo mënoon naa bàyyi lay naan mi di taaw kër mhm. waaye da koo jël jàpp ko àlaj sees mhm. daf ko bàyyi mhm. di def lépp lu war ci moom lay naan kenn ñàkkul yaa ñàkk billaahi wallaahi lay naa kenn ñàkkul yaay ñàkk sec ma ne sama xol dafa fees waaye lay naa li la coon dem defal lépp fa mu la féete woon yàlla na la fa yàlla féete fa mu la féete yàlla la fa mën a féete yàlla na fa yàlla féete waaw yàlla na ko yàlla may àjjana firdaws dëkk yàlla ñu ne xamul ci moom dara lu mu yàlla ak teggin ak lislaam mhm. seen baay moom moo bëggoon lislaam nag këram benn koy dox suñu diggante waaye bu mas ne jóg leen julli ñun ñu tëdd suñu lal lañ koy dégg mhm. kon nag yal leen yàlla boole defal ne àjjana firdawsi yow na yàlla nga sukk coon aw fan amiin waay amiin lim la daan defal nag yàlla def rek nag doo ñàkk dara waaw dem ak coon yàlla na ci jógee nag jóg ba faaw ci kanam yàlla waaw jërëjëf soxna si waaw jërëjëf waaw jërëjëf wax dëgg yàlla kàddu yi rafetlu nañ ko wax dëgg yàlla fi mu ne xolu ñëpp tooy nañu kàddu yu rafet rek lañ fi eh, lañ fi dégg Naar bi ngay wax nag ah, lépp daal kenn mënu ko wax sax mais lay naar yàlla rek lañ koy bàyyeel lay naar uf na ñëpp uf na jirim uf na baayo uf na ñëpp daal ci gàttal ñu koy ñaanal lay naar mi taxaw yàlla na sub coon sekk fan te yàlla defal ko barke bu ñëpp xaj ndax xam naa bu amee ñëpp am yàlla na ko yàlla jàppale daal di leen gërëm na di leen sant uh, yéen waa koñ bi parce que tam coon munoon naa dëddu àdduna ñu ñëw di leen laaj yéen ñëpp ngeen tëju seen néeg mais dafu leen ko da ngeen génn ànd ak ñun naqar bi Salam Vision nag mi ngi leen di gërëm di leen sant di leen ñaanal di wax ni daal yàlla na fi dee gëcc. jërë ngeen